ñi fi taxaw wax. nee na ñi fi taxaw wax. accepté naa seeni wax. dëgg na seeni wax nangu na ko. waaye man day. waaye moom day. du ma fonctionner noonu. nee na moom du doxalee noonu. cest à maanaam. du ma ñëw. du ñëw. ne nit ki. ne nit ki. defal ma lii. defal ma lii. ma defal la lii. ma defal la lii. loolu xel. nee na loolu xel xel bu rafet xel bu rafet dafay tey ci loolu xel dafay tey ci mais dañu am ci moom yaakaar waaye dañu am ci moom yaakaar man day en personne nee na moom mii ci boolu boppam en personne am naa ci moom confiance nee na am na ci moom ak óolute te su ma juumul ak sa ci juumulee yàlla mën na koo may yàlla mën na kaa may ndam ak ndam. parce que nit ku yaru. ndax nit ku yaru. nit ku ambitieux. nit ku am bëgg-bëgg. nit ku am pas-pas. nee ku am pas-pas. nit ku loxom set. nit koo xam ne ab loxom set na. ah kooku am nañ si moom yaakaar. donc kooku mën nañoo am si moom yaakaar. ngi àndax ñu dëkku. yaa ngi àndax ñu dëggu. yaa ngi àndax. yaa ngi àndax ñu bëgg dëkk bi ñu bëgg dëkk bi en commençant en commençant par sa jigéen bi par sa jigéen bi Anta Sarr Anta lay ñaanal. ñu ngi lay ñaanal. wakaam. wakaam nag. ku ko teral. ku ko teral. tëral ko. di ko tëral. ñun amuñu lu dul wakaam. ñun nag amuñu lu dul wakaam. te yaa ngi siy sonn. te yaa ngi siy sonn. guddeeg bëccëg. guddi am bëccëg. ñu ngi lay ñu ngi lay ñaanal. ñu ngi lay ñaanal. foo jublu. foo jublu. na fa yow yàlla jublu. yàlla na fa yiw ak yàlla fekk. ku tàntal rasulullah ku ne. ku tàntal rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku ne. ne nañ leen dem seeti Pape Mayel. ne nañ na yàlla